tomb ñaareel bi nga xam ne mooy liggéey bi te nun ñëpp nu war ko bàyyi xel te mooy ndono li nu fi Seyxul Xadiim ak magam ñu baax yi ànd nag moom moom lañ ñu fi bàyyeel nan lañ ko war a sàmme ba li jóg ngir ruur ko du agsi loolu mooy ñaareelu tomb bi nga xam ne ci lañ war a waxtaan te war koo bàyyi xel ñun ñëpp sunu borom subhaanahu wax na ci alxuraan ne na muy dawrul ahfaad fi lmuhaafasa ala turaasi al ajdaad taxawaay bi nga xam ne wala warugaru sët yu mën a doon ci sàmm seen ndonol maam taxawaay bi ay sët war a am ci sàmm ndono li fi seeni maam bay alxuraan nee na wallazina amanu wa tabaat um zuriyata um bi imaanin alxaqnaa bihim zuriyatahum wa ma alatnaahum min amali min shay waaye nag kulum ri'in bi ma kasaba rahiinun loolu ëmb na lépp nee na lu baax li nga xam ne moom laa defalan yi ak ngërëm liñ aman ci man ak cër ak wàccuwaay bu sët ya ñëwee te suubu ca yoon wa seen maam awan di wut la seen maam doon wut nañ ko doon wute ñoom maam ya lu ma séddal seen maam ci cër ak lu ma leen joxan ci wàccuwaay danaa leen ko jox waaye nag kenn ku ci nekk na ca sab taxawaay tollu na la ca sab cër di toll yaakaar naa loolu tënk na lépp kon loolu moo taxan Sëriñ Tuubaa wax ne wala tuqasit fadla rabbil xat ala li si taqaddumin faqat fa tëj hala te waxan nañ ko ci njalbeen gi ci himma mooy sët yi buñ jombale seen bopp la maam aman li fee ngay gànnaayoo la maam gànnaayoo woon ba am ko buñ ko gànnaayoo jaar fa maam jaaran la maam aman alxuraan nee na danaa ko danaa leen ko jox muy la ma joxoon seeni maam te duma ci wàññi dara waaye nag kenn ku nekk na ca sa taxawaay toll na la ca sa cër di toll Seexul Xadim ñëw ci sàmm ndono muy lii nekk tem bi mu jëfandikoo ca nam daan jëfandikoo sëriñ bi bokk na ci liy caractériser mbindam muy xasaayis mën a adabiyaatu Seexul Xadim maa ngi wax su contrôle sëriñ seexu naa ñoom moo di lépp lu ko ñor dëgg dëgg dëgg du tëb tëb digle ko waaye da koy ñaan boroomam yow mi xellu nag nga xam ne lii ñor sëriñ Touba ngir bëggal la lu baax ba tax mu tàllal yàlla loxo ñaan ngir mu jàpp ndalal ko ko loola day yow mi mu koy faggul ah boo xamee sa bopp war ngaa góorlu ca loola xam ne kii kat yëmut ci digal la waaye daf laa dimbale ci nga am la nga xam ne jëfe ndigal lii mu lay digal dana la ko jural loolu moo tax nag li ngay xamee Sëriñ tubaab li muy digle tam ñor ko mooy da koy ñaan bi mu bëggee mboolem moom ak ñi ànd nag moom di yàlla moom ak sëriñ Masamba ki magam moom ak góor yàlla yi jaayante woon ak ñoom liggéey bi ñu doon liggéeyal yàlla di ko liggéey ci bindeef yi nekke woon ku ci kaw suuf bu ñu demee ba woon gannaaw suuf yàlla may leen ay sët yoo xam ne danañ taxaw taxawaay bañ taxawan di sàmm noonu loolee di ko dund ak a dundal ba mu bëggee loola dafa tàllal loxoom yàlla ne ko wahëb la naa man ak ñi ànd ak man zuriyatan tudiimu alamala bil alifi walaam alamala saali a yaa qadiim maa ngi ñaan nga may ma ay sët yoo xam ne dañu assurer la continuité ba rupture du am nag ma dimbali ci rupture bu mu am bu mu am waxtu woon fi jógee man ak ñi ànd nag mu diwut yàlla nanga nu may ay sët waaye xool ko nag waxut ne nga def sama sët yépp parce que nag waxtu wu nekk day wax naa lu yàlla mayul rasulullahi namb naa koo ñaan waaye nag zuriyatan lu jamono yàqu-yàqu na nga ma may nag ay sët man ak ñi ma àndaran yoo xam ne faw nag dañu sax di dund ak a dundal la ma fa bàyyi woon allahu akbar wahab lana zuriyatan tudiimu al amala saaliha muy jëf ju baax dañ fi nekke wan nanga nu may ay sët yu koy dund ak a dundal yaa xadiimu waaye nag mu ñëw sas la nag yow ne la ñaan gi nag boo ci bëggee bokk nag da koy gàttandoo waaye ni koy gàttandoo nag mooy da ngay defar sa bopp ndax am na ci liggéey boo xam ne ku defaru doo ko def mu new turiyatan tayyiba turiya tayyiba balaa wax parce que am na ci loo xam ne ku defaruut doo ko man ku defaruut doo mën a defar kenn ku setut doo mën a setal lenn mu ne zuriyatan tayiba nanga nu may ay sët yoo xam ne danañ assurer la continuité ci lan tu jaddidu mooy liñ fi fekkan danañ ko yeesal yeesal ga mooy lan aar ko ba du yàqu du wàññiku ñu dégg baati sëriñ bi tu taj tajdiid mooy aar liñ fi fekkan ba du wàññiku du yàqu xam nga mën naa bañ a wàññiku na yëng tollu nam tollu woon haykal ba mais biir ba lépp yàqu mën naa bañ a yàqu it ba noppi wàññeeku tu jaddidu nag mooy nañ ko aar ba du wàññiku du yàqu waaye bu ñam ci loolu tëj tehidu nañ def ittihaad nag ci dolli ca lépp loo xam ne lu jamono laaj ci lu koy rafetal ak lu koy taaral ak lu koy yokk muy ñaari baat yooyu kon taxawaayu sët yi ci sàmm ndondale mi ngi tënku ci ñaar tajdiid wala ijtihaad tajdiid mooy li nga fi fekk nga sàmm ko ba du yàq du wàññiku waaye ijtihaad nag mooy nga dolli ca li jamono laaj lii ngeen def tey lu ngeen ci dolli la daayira sëti seex mahmudan yu dajaloon nas seen bopp wut ay commission pour fas yéene liggéeyal seex ma sàmba ci li jamono laaj ñu liggéeyal ko ci kooku ci ijtihaad la kon loolu nag mooy liggéey bi su ko defee nag bu ñëwee ci biir ndono li damay yéegaat ci kaw waxan naa ne bokk na ci ndono li ñu xamee li ñu xamee li ñu xamee rek yoon wi nee naa liñ daan xamee jataayam yoonu murit liñ ko daan liñ ko xamee démb ak bërki démb mooy pour nga xam ki ñu yërëf ak ki ñu yërëf ca nuyoo ya nga koy tàmbale ba ca toogaay ya war maalante daraja joo mën a yor ak barke ak mbooloog lépp tey bu sa kilifa taxawee nga wan ko ne nga wan ñépp ni kii mooy sama kilifa loolu nag ndono la loo xam ne lu ñu xame woon yoon waaye am ruur tàmbale ndi cee dugg bari aana ay ndaw yoo xam ne tey buñ nekkee ak seeni baay wala seeni mag ëpp leen barke wala ñu ëpp leen wërsëg wala ñu ëpp leen xam-xam dañuy daal di jombalee jombale seen bopp nag sippi seen daraja ngir ñooña ak jox leen ub cër topp yow a yow a jàkk jàpp ne am na loo xam ne bu la toppee ci biir mbooloo rek wala nga am ko ci ay koppar walla wàccuwaay waratutoo màggal kenn ba lu bari luñ xame woon yoon wi ba ñu bukkutan ci yoon wi dañu ca roy sax malheureusement am na ci biir ndaw ñi seen ratio bu mujj bii ñuy tàmbali di di di bàyyi loola di teral sa kilifa ak fonk ko donte yaa ko ëpp ëppale sax ci wàllu zaahir barke ak daraja ba loola am na lu mu jur ndax nag sëriñ xaadim mbàkke mii tey sëriñ alxaaji fadilu mbàkke mii way juram di sëriñam képp koo xam ne gis na ne mooy sa kilifa te cër ba nga ko war a jox joxoo ko ko na ko war a defoo ko ne mu di ko gis ah bu ëllëgee nag ba nga toog di kilifaam nag pour mu def la noo defutoon way juram ah yàlla mën na koo dimbale de mu jëfandikoo wala tastawi alxasanatu wala sayyi'a idfa billati ahsanu waaye nag su jëfee it jasaa'u sayyi'atin sayyi'atun mislu ayit ñëpp régal la yoo xam ne lépp alxuraan da ko indi te loolu mooy li am bari aana tey koo gis tey mu daje ak koo xam ne mooy kilifaam di baayam wala mooy mbagam ci askan wi sobental ko jox ko cati baaraam te boo ko laajee dalay wax ne leen nii la daan nuyoo sama baay nii la daan nuyoo sama sama kilifa man nag ku fonku doon sama kilifa duma ko teg fenn muy loo xam ne nag dañ koy mujj di donante ba mujj nag li nekkan cosaan ci nun day mujj dem kon nag ndono loolu nga xam ne mooy warmaalante ak fonkante ak joxante ay cër gi yoon wi xaman nañ xam ne ci ndono li la ci màndarga yi yoon wi la nañ ko téye nañ ko aar bokk na ci ndono li ñu war a aar beneen ba ca des muy kilifa am na zaira bu tàmbalee am ci biir bàmba ji te kenn mësu ko cee xam te kenn ku nekk war nga ciy jël say responsabilité te ci ndono li la wan mooy bamba ji bokk na ci njabootu xaadim rasul li leen ñëpp nawe woon kër yi dina yëpp nawe leen ko mu may leen doole ju kenn amutoon muy fonk kilifa ak nangoo am kilifa ak nekk ci gannaawam sëriñ Tuubaa noonu la organise yoon bi kër gu ne kam samp mu nekk ca bopp ba moo jiitu jiite lépp yore kàddu kër ga yore doxinu kër ga ñépp topp ci moom di ko déglu ak di ko déggal kenn du ko fakkatal loolu moo téye woon yoon wi joxan doole yoon wi léegi nag noo ngi tàmbalee gis loo xam ne mësta am ci biir yoon wi mooy ay gone yoo xam ne kër ga ñu nekk ci ñi ci gën a doon gone lañ ñuy dégg waxtu wu ne ña ngay yëkkati ay kàddu ci turu non ci biir non ci ci turu kër ga sax waaye sax ci turu yoon wi ci boppam te yoon wi genn kàddu rek moo daan am bu dee lu concerné yoon wi ki nekk ci bopp yoon wi rek nekkal fi Xaadimu Rasuul moo cay wax walla mu wax lu ca bu dee lu aju ci kër Sëñ Masamba ki fi nekkal kër Sëñ Masamba rek bu dee lu aju daaru muti noonu bu dee lu aju ci kër Sëñ Mahmoudan noonu loolu moo taxan yoon wi dëgër ñëpp naw leen ñëpp weg leen léegi nag lu xew nga dégg ay ndaw yuy jóg di wax te seeni kilifa nekk fa te loolu yokk joote la waxuma sàggi sag sagu jëm a sàggi sagub yoon wi waaye sax yokk joote la parce que même bu dee looy revendiquer ak looy kaas te kii sa kilifa ne cell waxut nga jiitu ko ci di wax ña koy dégg dañoo xam ne ay gone yu wax rek lañ ndax yoon wi nag xam nañu ne maanaa ña ca war a wax moom bu ñu waxee lu ñuy saafara mu waaye ku wër wax bu bu bu waxee saafara su jur jàngoro la kon nag nañu delloowaat loolu nañ delloowaat yoon wi fa nekkan ñu baree baree bari tey ñu ngi wax naan tey de waaru nañ ndax kër yu bari yoo xam ne sax dañ daan roy yoon wi ci loolu kenn déggatu fa ay gone yu wax mooy ñi nga xam ne dañu daan roy ci loolu ci benn baat ak genn kàddu léegi tey ñu dem bu ñu demee dem bu bëgg ñëw jiitu ca loola ndax kenn du fa dégg gone kuy wax ñun nag waxtu bu nekk ñu ngi dégg ci rajo yi ci télévision yi ci net yi fu ci nekk war nañ ko xoolaat te xam ne ndona li mooy loolu mooy nosu nangoo am kilifa te di ko déggal lépp loola naqari lu mën a doon lu nekk lu rëy rëy nga xam ne bu dee looy faj wala loo bëgg a faj sa kilifaa la ci gën a jekk moo la ci war a gën a jiitu boo mënta ñàkk wax nga wax ca suuf ca ak moom te sag ba ak baat ba nga bàyyee loolu bokk na ci yi nga xam ne tey yu yu zaira la boo xam ne tey yaatu na dégg ngeen xalif général de Mouride. wax na ci ay yoon yoon muy Cheikh Sidil Muxtaar bu ma wax waxloo na ci Cheikh Bas ci màggal gi waxloo na ci sëriñ euh, euh, sëriñ euh, Mamoun Bousso waxloo na ci sëriñ Fallou Abdou Khadir kenn ku ci nekk muy loo xam ne rek kenn ku ci nekk nag ah la koy saafara mooy kenn ku nekk nag tàmbale ko sa kër bopp fexe ba loolu du am ci sa biir kër gone goo dikk muy wax ci sa biir kër nga woo ko ne ko lii kat bokkut ci melokaanu yoon wi bokkut ci doxiinu yoon wi bokkut ci dorol yoon wi lépp lu la naqar rek waxtaan ca ak ñi ca waxtaanal ci say kilifa te bàyyee leen kàddu gi sagale leen kilifa ñu wax ca te bul jiitu sa kilifa bu leen jiit bu leen fa kaftal loolu kenn ku ci nekk tey pour ñu xeex loolu aara àndoore li mooy kenn ku ne sa kipaaru bopp ngay tàmbalee. leneen la ca des te nu war ko roy te mu bokk ci zaira beneen boo xam ne fa tabaarakallaahu ah mu di yoon wi dafa am lu ñu leen daan nawe loo xam ne moom lañu daan nawe nit mu di ci jikko ak melokaan wu rafet kooku rekk lañu daan naw moom lañu daan nawloo suñ barab yu tedd yii tey mag ñi dañ koo ñagan gàndaayoo waxi sëriñ Tuubaa ja islaamu na waxlam bi ann diina inda allahi islaamu na laa diina si fokkat ak caaxaankat mësta am wàccuwaay ci biir yoon wi mës fee ñëwee teg tànkam kon bu ñu demee nag tey ba fokkat yi ak caaxaankat yi fokkat yi ak caaxaankat yi fecckat yeeg waykat yi seen bopp tey di am wàccuwaay boo xam ne ci yenn kër ak ci yenn barab jàngalekat yi alxuraan yi ak borom xam-xam yi ak taalibe yu sell yi amuñu ko fa loolu it am ruur la te bare ana ay kër ak i barab yu baree bari yoo xam ne fokkat yi ak caaxaankat yi muy tëggkat yi ak fecckat yi ak tiyaatarkat yi ak caaxaankat yi ñoo fa ëpp wàccuwaay jàngalekati alxuraan yi ak jàngalekati xam-xam yi dafa am benn bis war naa ma war naa mat euh, xëy na sax juróom-ñaari at wallahi alazim soxna si ma nekkan këram bi may jàng ñu di ko soxna ab sa siise soxna sëñ paateloo di rakk ci sëñ morloo bu daaree kaamil ñu ñëw mu ñëw di siyaare si ñu ànd dem ci benn barab ci genn kër seen soxna ñu àgg rek mu daal di yëkkati ay album di ko wan mu xool album yooyu yëpp ay xeeti waykat yooyu ak yooyu ay waykat rek a ci nekk ak i feccakat ak ñooña mu rëy lool ci moom mu naa ko ma jox la seen numéro ma wool leen soxna si génn ab sa génn am déception parce que moom leneen la doon séentu kon yooyu yëpp itam am ruur la ay ruur la yoo xam ne fokk ñu wax ko boo dee déglu tey ci émission yi caaxaankat yi ci biir rajo yi ñu ëpp ñu bari ci ñu ciy woote ci dëkk bu tedd bi la ñuy tuddoo mën a soxna diw mën a soxna diw ci kër sëñ diw ci ay émission yoo xam ne ay caaxaan ak i fëlkuróor lañ cay wax yooyu yëpp kon nekk loo xam ne ba tey ci ndono li la nu war ko bàyyi xel bu baax war ko sàmm beneen bi ci nag te yaatu lool te ñun ñëpp nag ñu war cee taxaw mu di mag ñi mel ni mag ñi tëdd fii tey mu di sëriñ Masamba di koo xam ne xoolal lim doon ci sëriñ Touba waaye gannaaw boo xamee ne. jaar na ca loxal magam yu baax ya ak góor yàlla yi ko sëriñ Tuubaa boole lan ci wàllu jàng alxuraan ak xam-xamu diine ba noppi moom ak ñaari doomam yu baaxee Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadoul Fadil sëriñ Tuubaa moo leen tarbiyal boppam ci Ceyeen ba mu leen tarbiya ba noppi yemul ci tarbiya leen kenn ku ne dafa bind li tubaab di wax lettre de mission jox la daal di wax ne tarsi dun li Masamba Mbàkke tamxiir li mu Muhammadul Moustapha tatxiir li mu Muhammadul Fadil kenn ku nekk mu bind ab lettre jox la muy sa lettre de mission bi nga yóbbuloo ñu nekk ñoo xam ne ay modèle lañ ñooñ cër bañ am ci yàlla dañ koo liggéey ba am ko sëñ bi defar leen ba ñu defaru boole ci am te mën a defare mu boole leen ak mbooloo mu doy sëkk ñu defar leen bañ defaru léegi nag saa ira bi xew léegi mooy lan bëgg a dajale mbooloo ci turu yoon wi la ma Masamba aman nga am ko lasiñ ma sëñ Mahmoodan aman nga am ko te fañ jaaran ba am ko përéwoo fa jaar mësoo jaar ci daara yi alxuraan nii daara yi xam-xam nii daara yi tërbiyewu ba noppi bëgg ne da ngay tërbiye defare dajale am mbooloo ci turu wi te yow mi leen dajale ne danga leen di jëme ci yàlla xamugoo sax yoonu yàlla te loolu di loo xam ne Serigne Touba waxan na ko démb danañ ci ñëw ak ñeneen ñoo xam ne muy zaire boobu nañ wax boobu ba àggal sax doog a ñëw ci bi ci des wa baadu um yarkanu li tasadduri ila riasatin bila tasatturi walam yu mayis bayna fardin wa sunan wa yajsibul waraani moo jibil fitan loola bi ixtibaari ma sa la léegi laa koy wax suñ seexu naa loolu daanaka ba ko sëñ tubaa di wax teye tax waaye jamonoom sax loolu amu fa woon ci biir maanaam koo xam ne tey mi nga dajale mbooloo ci turu bamba ji ci turu islaam te moom mi leen di dajale sëriñ Tuubaa nee na xàmmiwut farataam ak sunaam walam yu mayis bayna fardin wa sunan wa yajsibul waraa li moo jibil fitan ma ngay ma ngay ma ngay ma ngay mobiliser nit ña di jël seen alal di jël seen doole di seen seen waxtu ci turu yoon wi te loolu lépp lam leen naar a jural Sëriñ Tuubaa ne mooy fitnay tey ak fitnay ëllëg rek mel ni tey mel ni tey daal mag ñi ñoom lañ aman ab ci dañ ko lijjanti woon te mag ñi lañ aman mooy ci tarbiya ak tasfiya ak tarxiya lañ ko amee yow mosoo jaar ci daara yi tarbiya mosoo jaar ci daara yi tarxiya mosoo jaar ci daar yi tasfiya xëy dajale mbooloo ci turu yoon wi waaye ñooñu ñan ñoo leen di topp muy caaxaankat ak wëyu yi nga xam ne ñoom maanaa lu yomb rekk lañ bëgg ku leen di dig ajjana ju àndut ak jaamu yàlla lañ bëgg ñoo la ñuy dajale ñu topp leen ñuy ànd di rëjëx rëjëx rekk di wéy waaye ku góorgóorlu wut nag ñu fakkaale sa yëf ndax dañoo wut ñu leen di propagande waaye am na saa zaahira boo xam ne itam bu doy waar moom it Sëriñ Tuubaa wax na ko de ñoo xam ne xam nañ bu baax a baax a baax jàng nañ ba xam xam nañ lu baax ak ni ñu koy wuteeg ni ñuy defareeg ni ñuy jariñe nit ñépp waaye nag seen intérêt yi bopp daf leen a gën a ñor defar nit ñi te xam nañ ne nit ñi ñaari catégorie lañ fookat ak caaxaankat yee nga xam ne ñoom sëriñ buy fooka caaxaanakat di leen yombalal diine di leen dig àjjana ju àndut ak jaamu yàlla la ñuy waaye am na nag gaa yu baax yu sell yoo xam ne ñoom pare nañ seen alal ak seen lépp ñu jox ko képp ku ñu gis nga yor màndargam nit ku baax ku sell ci sa col ak say waxin ak say defin sëriñ Tuubaa nee na am na ñoo xam ne it stratégie boobu lañu jël ñoom itam comme alal ak teraanga lañ bëgg te xam nañ ne am na boromi alal ak boromi teraanga yoo xam ne faw nag nga sol mbubum sëriñ kaalawoo kaalak sëriñ di wax waxiinu sëriñ mel melokaan woo xam ne ku la gis ni kii loola mooy mën a indi seen alal sëñ tubaa nee na am ñoo xam ne it woowu yoon lañ jël wa baadu um tara usa taamumi mu tawi jarax si ma at talasumi tashabbuhan bi ru'asaa'i saalihiin man am mu umrital jalil kulla in wa yaskuru laa kasiran bi lisaan wa qalbuhu atnasu min kulli janaan léegi da ngeen gis phénomène boo xam ne waa joo xam ne tey waxuma sax kaalawu du yem ci kaalawu waaye talasum la day muur kanam ga ba bët ya képp ay feeñ ak bakkan ba son mbubb su oyof di wax ndànk foo ko fekk mu yor kurus walla mu yor ab téeram di wan nit ñi ne yàllaa ko tax a jóg ak yóbbu nit ñi ci yàlla te fekk nee na boo xoolee xol ba moo gën a tilim luy tilim di wane na moom daa àdduna moom defar nit ñi rek moo waaye alal ji sax soxlawu ko di ko sobental ca kaw te nee na Sëriñ Tubaa nee na jubluwu ca lu dul mbaal xolal mbaal mbaal alal yi nit ñi rek la ci jublu loolu dem nañ ci ba am na ci ñoo xam ne sax yëmuñ ci la waaye dañoo wut sax ñu leen di propagandal te pour sàmm ndono li ñaari catégorie yooyu Serigne Touba wax ñëpp tey boo demee ci ñi leen di fréquenté ñi ci ëpp ñu bàyyi ko ci yeneen kër lañ ñi ëpp ci ñi leen di fréquenté ci yeneen kër lañ bàyyi ko ngir ñàkk fayda ak ñàkk xam li ñu xam ndax kër gu mel ni kër gii tey di ko mel ni sëriñ Massamba tey sëriñ tubaa liggéey ci moom ba noppi ci moom defar ko ba mu defaru mu def ci moom lu tax mu mën a defar ku nekk ku defaru ku mën a doon nga wëlbati ko ci amaat ca ku mel ne sëriñ Mahmoudan mii tey nga xam ne tey ci axtaabi yoon wi la bokk ci modèle yi ñuy xamee yoonu sëriñ Touba dëgg-dëgg ak nit sëriñ Touba la mooy boole woon aqiqa xaqiqatul sariatul mutahara wa aqiqatul munawara muy jàmbaar ji borom dëkk bii tey fu mu mas am kër jàkka muy néegum yàlla dafay fay njëkk taxawal te néegum yàlla ba mu taxawal bu nekk mooy jiiti julli yu juróom la yàlla santaane lépp mu de ko def nda ko yàlla santaane te lépp loo xam ne lu aqiqa la muy ndigal lu bàyyi ko ci ku fi nekkal Sëriñ tubaa kenn du ko ci jiitu kenn du ko ca man boole sariatul mutahara wala aqiqatul munawara yor melokaan wi Sëriñ Tuubaa wax ne foofu wala si uqaloo yu tabax ku ko ku boole yaar yooyu yaay ki ñu war a topp kon nga am ku mel noonu mu jël sariya fa mu ko tegan jël alxuraan fa mu ko tegan jël ak taaliba fa mu ko tegan nga am ku mel noonu yàlla boole la ci kër sëñ Masamba nga bàyyi fa la sëñ Masamba am di xaaraani leneen ak a wuti leneen feneen loola ku ko def ku ne xamoo noonu li nga am te sëriñ tubaakat kat am na lu mu wax ci loolu Alaaji Fallu nee na sëñ Masamba ak ñi mel ni ñoom kenn ku nekk tibbal naa la ndab loo xam ne ba ma la koy daata tibbal ñama la booleel ci ay taalube nga war leen a defar ñu war a jariñu ñoom lépp njariñ def naa ko ca ndab kon nag bàyyi fa ndab la di xaaraani ñàkk xam sa bopp la te loolu ni ko wax ci xasiida googu nga xam ne ca lay leeral juróom-ñaari melokaan yi nga xam ne liyantabi kullu muridin salikin raamal wusuula lil badi il maliki li wa alal umuuri fi'lu a buruuru wa tarku a minal awa xuruuru juróom ñaari melokaan la ca wax ne mooy melokaanu taalibe murid dëgg képp koo xam ne ku ca sax lépp looy wut ci lu baax talal sa loxo da nga ca jot ku ko bàyyi nag loo yaakaar ne danga nga ca jot da ngay nax sa bopp waaye juróom-ñaareel ba mooy lan saabihu an laa yoroomu faida illa bi i mi man ata bil maida ñu bari ñu bari duñ ci bàyyi xel saabihu an laa yoroomu faida sa cheikhul murabbi bi nga sukk jébbalu ji ak kër gi la yàlla boole taaj naa fa ndab loo xam ne lépp nga ca kon bàyyi ko fa dem di xaaraani di wutiwaat leneen ndab ñàkk xam sa bopp la waaw kon muy yoo xam ne kon lu baree bari la ci yoo xam ne ay yëf la yoo xam ne pour ñu mën a sàmm ndono li foofu lañuy jeexale mooy nag fokk nag ñu téye njaboot gi téye njaboot gi wutale ab gétt te bañ leen a bàyyi ñu boy ndax bari ana loo xam ne kat faraax moo koy waral kon nag nañu dekkalaat daara yi dundalaat li fi nekkan wanaat taalibe yi kenn ku nekk bu dee fii ci kër ma Masamba ak seex ma Cheikh Mahmoudan nañu koy jàngale di ko wan ndaw ñi di ko wan ndaw ñi fexe ba tënk leen ci ba duñ wuti lenn faneen parce que duñ am jotu def loola ndax jot gi nag moo waral ñuy dañ kumba ci leneen kon nag nañ góorgóorlu ci sàmm ndono li di jàngale jàngale njàngaleem sëñ sàmba yarinu sëñ ma sàmba ca alxuraan ja ca njàngum xasaayit ma ca tarbiya ba ca tabe ga ca fa lépp tey ba kenn ku nekk tey lañ la cay tobbil ci aw sas bay ko dara doy sëkk ba doo seetaani leneen doo wutiwaat faneen ñu lu baax daal ci sàmm ndonali te xam ne ruur mi bari na te lu jóg pour yàq bari na bu ko defee loolu lépp tey nu lu bu baax a baax góor góorgóorlu bu baax te xam ne lu lu lu ndono lu mel ni li am fii tey te lépp di sëriñ tubaay kese ku ko am waroo xaaraani waroo jëkkaani feneen waaye ku yàlla boole ca loola ngay sëtu ku mel ni am nga aw sas. dëgg nga aw sas te Serigne Touba ci way yii loolu laay jeexale waa ab la naa suriyatan tuddi mu jooju nee na ñaan ku nangu la waaye nee ku bëgg a bokk ca biir ñaan gi nag dangay jóg gàttandu ko. doo toog fa nga nekk naan na ma fekk doo ko wan gannaaw naa na ma dab mooy lii sëñ bi ñaan ci am ay sët yoo xam ne dañuy sàmm ndono ba du yàqu du wàññiku ku ca bëgg a bokk dangay ngay jug ittiwoo sàmm ndono li ci jàng ba xam li nga war a xam ñu yar la ba nga mel ni nga war a mel nga fa yéene am kilifa ba noppi di ko déglu di ko déggal bañ koo fa kaftal ci lenn kon noo ngi jéglu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. <coughs> jërëjëf eh, sëriñ Xaadim yaakaar naa waxtaan wi li ngay xamee ne am na njariñ mooy ni ñu la dégloo ndax wax bu bu tàbbee ci xol rekk faawu cër yaru te yaakaar naa ba nga tàmbalee ak léegi waxuñu kenn déglul rawatina suñ bokki jigéen ñi kon day mel ne li nga doon wax tàbbi na ci biir xol yi yàlla na yàlla may kàttanu cër yu ko jëfe wax nga ci lii nga xam ne moo di dundal ak bokk ak jokk ko waaye wax nga it ci liy sàmm ndono li ngir njëkkante ak waxtu wi sunu ñaari gan ñu tedd ñi dañ leen jox ku nekk juróomi minute waaye bi nga mujjee moom ñaan nañ nga gën di ko yaatal bu baax a baax a baax a baax ndax léegi kat seex su bees si xew ci yoon wi ak nit ñi ni ñu gaaw a àgg ci yàlla dama yaakaar ne yoon win jaar daa bokkut ak yoon wa mag ñi jaaroon dangay gis gone goo xam ne démb rek lay jóg rawatina ñu jéggal ma ko bu bari lii xew léegi muy tuddoo gi ñu tuddoo koo wax mu ne man maay xasida sàngam te man yaakaar naa mëneesuta am ci xasida yi cër bu ci sëñ sàmba amut cër bu sëñ ma Masamba amut ci xasida yi sëñ Tuubaa yii man yaakaar naa ne gonek jamono mënu ko am ndax la musaloon sëñ Masamba musalut gone yi sëñ ma sàmba yàlla musaloon na ci ay bëtam du gis lu bon du gis lu araam ab cëram daawu ko jëf am xelam ndaawu ko daj ñu nag yàlla nattoo nañu li ñu li ñu wër lépp daa araam li ñuy gis daa araam daanaka li ñuy dox lépp daa araam ba noppi ñu yor xaside yi koo ci waxal mu ne la man àgg naa ci yàlla wala am naa ci xaside yi cër sàngam wax nañ ne sëriñ saxit ndake ci ñu sëñ Tubaa yar la bokk wax nañ ne sëriñ Tubaa am na bis mu ko tàngalloog am ndox fekk muy jàng nooru daara yi nii nee na mu tiimale nooru daaree ni bi ci kaw ndox mi mu bax mu yët ko sëñ tubaa sëriñ tubaa ne ko sahit noo ko tàngale gaaw na de mu ne ko xaside gi laa ko tàngale mu ne doonte manees na ko de man mi ko taalif maa la ko war a dàq demal wutal ma ay xalta tàngalal ma ndox mi laa la wax kon yu bees yi xew ci yoon wi daa bari rawatina nag seex si nga wax moom te man li ma jaaxal mooy seex sépp nekkuñ tuubaa duñ joxe addiya mbooleem seex su bees si ndakaaru lañ ne di fa wootee waaye déggagoo ci kenn koo xam ne daa ànd ak njabootam di siyaare si duñ la wax ci seenub sëriñ te ñi leen di wuj it ganeen murit gu bees la ñi leen di wuji ganeen murit gu bees la murit la goo xam ne seen dégisment yi bopp lañ yor ak seen langaasu bopp daanaka bi yaay faal xewee la yu bari xew bu njëkk kenn xamu ko woon rek lañ xamoon façon seex si xew léegi boo demee ci seeni dongo la ñuy wax ci waate wolof yow déggoo ko yow mi juddoo tey ba ndax seen langaasu bopp la ñor borom bi day nelaw ak yaaram nangam ak leer yeeg yoneen yu bees yoo xam ne da dex ba àggal doo xam ne ñuy wax waaw sëriñ ba nga xam ne moo leen moom moom lañ wax ne moom lañ jox seen boppit loolu nga ko waxee ci ak col ak i waxin la leen di wooye waaye du leen woo mukk ci xitma bii nga xam ne moom la sëñ Tuubaa taxawale yoon wi doo leen dégg ci benn gor doo leen seen ci benn ziyaar amuñu benn bis buñ tànn di ko jox seenub sëriñ addiya kon loolu lu mat di yaatal la ci waxtaan yi ndax am na solo lool yaakaar naa it mbokk yi dégg nañ ko man ba may dégg ba dégg seex bu jigéen boo xam ne bu yàggut laa ko dégg la laa noppi ci mbir yi waaw kon sëñ sëñ waaw sëñ seexu naa yaa sëñ xaali bisimilah auzu billahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim nahmadullaha wa nastaghfiruh wa nasta'inuh ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamu aleykum suñu kilifa gu tedd gi nekk ci jataay bi nga xam ne bu yeble waa sooy waaye mu ñëw di Serigne Cheikh Mbacké mii borom penc mii ànd ak njabootuk Cheikh Mahmoudan sunu kilifa gu baax ga nga xam ne doy na ci rek tegtal bokkoon na ci ñi nga xam ne bu Cheikh Abdoul Ahad daan dem fu mu fonk te daawu dem fu mu fonkut faw dana ànd ak moom te saa yu tukki ba jeexee ñu bari ci moom lañuy ñuy xame ne sëriñ bi génn na walla boog mi ngi waaja génn kon sëriñ bi ñu ngi lay ziyaar bu baax di ziyaar njaboot gi yépp waaye ma ci profité ci koo xam ne mën naa wax ne moo ma yar muy a Cheikh Abdoul Ahad ibnu di ziyaar ñépp di ziyaar itam waa daayira bi nga xam ne ñoo taxawe lu am solo lii te muy mbir moo xam ne docteur Khadim ñëw na ci lu jaadu la lu war la lu rafet la itam te sëriñ Khadim jiite ko waaye docteur Khadim Silla wala Sill li nga fi indi mën naa wax ne ku ko jéem a leeral day faaf lëndëm ndax waxu fi lu yees de waaye méthodologie ba Serigne Touba daan jàngale nga xam ne fekkoon na fi lépp waaye da koy tënk ba nga xam ne su la ko waxee da ngay jàpp ne lii kat tey nga ko soog a dégg mboolem xasiida yi nga fi indi muy xuqa rawatina tey jànge nañ ci njàng moo xam ne su doon ne lu ñu koy mën a tuddee la cour martiale koy tuddee muy dars boo xam ne ñépp muy ko gën a kawe ci xam-xam ba ci ñun ñi nga xam ne dañuy làmbatu jële nañ ci njariñ loo xam ne mën nañ koo ta teg loxo mën nañ ko làmb daj ko mën nañoo a xool gis ko waaye ñu tënk ci rek ne tomb yi mën nañ ko cee jàpp ba jiitu mooy bokk fu baax am na solo lool waaye la ëpp solo mooy nga xam ko yëg ko loolu Sëriñ Tuubaa tënkoon ci ne bokk fu baax de am na solo ci wàll waaye amul solo ndax mi ngi demee ni yow mu ñu jox aw jiwu jox la suuf su baax jox la tos nga am ndox mu doy nee na soo ko jëfandikoo bay ko danga am tono ju ëpp ka amul suuf su mel noona wala jumtukaay ya mel noona waaye nee na ku ko sàggane it ba booyal ko di nga am mbooy goo xam ne mooy ëpp fuuf am ñax ña nga xam ne amuñ suuf su mel noonu nee na te ak mbooy moom baaxoo na di mujj ci daay te daay gu la gën a ëppum ñax gën laa metti tàkk-tàkk yàlla nañ ci yàlla musal kon ku bokk fu baax buy baax day gën waaye buy leneen it yàlla nañ ca yàlla musal beneen ba ca topp mooy islaax muy yéwénal nit li tax ñu andi ko fi mooy day yéwénal yéwénal googu nag mu am xadis boo xam ne dafay tënk ne iimaan mu ngi tàmbalee ci bi nga tuddee ñaari baati seede yi waaye mi ngi yam ci romb dara lu mën a lor nit nga toppale ko wala nga gis lu mën a jariñ nit nga jegeel ko kon foofu li muy soree lépp mooy nit ki bu nee gëm naa yàlla waxut sax mbokk waaye dem ba ak dégg walla lu mën a lor nit ciw yoon nga toppale ko kon bu boobaa mbindee fi yàlla yépp yéen a ngi leen aw yiw xol bu defaroo noonu mooy li tax ngëm a jóg kon sëriñ Touba nag àggale woon na foofu nit ñi lépp lu ca rëq rek ci nun la kon dañoo war a seetaat sunu bopp beneen ba ca des ci jokk ak bokk sëriñ bi tënkal ñu ci tënk bu gàtt ne mbokk de mën naa ñett mbokk waaye mënu leen a ñett nee na mbokk mën naa gën mbokk waaye mënta génn ay bokkam mbokk mën naa ëppule mbokk waaye mënta ëpp ay bokkam mbokk mën naa raw mbokk waaye bu àndut ak ay bokkam aw doxinam kenn du ko rafetlu mu am benn xadis boo xam ne lépp ci rafet jikko lay tënku te muy tomb yi nga xam ne docteur traité na ko bu baax ka koy nettali da ne dañoo toogoon ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ay picc moo tong ci suñu kawi bopp lam ci jublu kon mooy ndeke bu ñu toogee ak kilifa war nañoo ànd ak yar tekk te selaw ni ñu ko nax ju di jàngale nee na mu jékki-jékki rek am mbooloo mu joox ci suñu biir ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw yonent bi mu ne waaw mu ne ko ana lan la yàlla gën a bëgg ban jullit walla kan nit la yàlla gën a bëgg ci nit ñi yonent bi sallallahu alayhi ne ko wala ne leen ka gën a rafet ay jikko mooy ki yàlla gën a sopp beneen ba ca des mooy himma te mooy ak defaru mooy bañ a néewal muy am itte ju kawe bañ a néewal googu nag mooy doo bàyyi loo waroon a def waaye doo defit loo wërtoon a def waaye doo bàyyi it keneen di def luy yàq ndax wolof yi dañuy wax ne ñaari matu ko yoo boole mu ëpp ko kon néewal bokk na ci li nga xam ne dafay féeroo ak itte ju kawe beneen ba ca des muy wàllu dencante loolu it ñaax nañu ci lu bari mu war a doon lu ñu settantal lu ñu war a taxaw seetlu beneen ba ca des mooy nit ki lu am na ko bokk ak ay bokkam beneen ba ca des mooy fonk kilifa ndax suñu boroom lépp lu muy séddale da koy nose te kilifa ak ka mu yilif léeg-léeg ñëw na foofu ndax wax na ñun ñi ñuy nan lañ war a def waaye wax na ñi ñuy yilif fan lañ war a jëm mën nañ koo misaal ci ne kilifa kon wasiila la wasiila mooy lan tey ji jóge nañ Touba war a dem Touba la dugg ci oto bu ñu yóbbu oto ba ñuy yóbbu Touba Mbella mooy kilifa gi kon oto ba na mën a daw ba indi ñëw bi ñuy agsee ba wàcc kilifa gi ci yàlla la jëme nit ñi bu ñu xasee àgg ca yàlla daanaka dootuñ ko soxlaati xanaa bàyyee kook yàlla mu fayal ñu ko kenn ku ci nekk war waaye wa nga war ba nga ñëwee yaa ngi bàyyi ca bitti dugg toog bala ca sa xel di demati rek nga fobu ngir bëgg a dem kon teg nañu ci yoon wala wane na ana ku nekk lan la war a def muy ka yilif ak kañu yilif beneen bi ci topp mooy doyloo li nga am loolu sëriñ Abdou daan ko misaal ci ne ku xeeb robinet ba nekk sa kër ba dem ca travaux ba muy forage ba wala château d'eau ba nee na téen ak dox guy metti nga fay jële waaye naan moom kenn mënu koo defee ci ab forage beneen bi ci des mooy ñu tënkee rek ci Cheikh Massamba radiyallahu anhu ci njàngaleem yu am solo yam daan jàngale ak nam daan dénk nit ñi tawxiit ak doyloo yàlla ak doyloo sa bopp ñaar yooyu nga xam ne mooy li tënk wala principe yi taxawal nax ju ci la ko sëñ bi def mooy nit ki wërta xëccoo daraja wërta xëccoo itam alal ñaar yooyu bu génnee ci bopp nit rek ak defaroom day yomb sëriñ ma sàmba dafa am mbokkam mu amoon lool aw rafle dikk ci moom di ko ko diis bi mu dikkee sëgg wax ko ko sëñ Masamba daal di dawale nopp bi lam ci jublu mooy bëgg na li muy wax nit ñi dégg ko te kooku bëggutoon nit ñi dégg li muy wax ne ko nu mu demee mu ne ko dama bëgg lu ma sol ba mbooloo mépp toog di déglu dafa geesu rek joxoñ ko ak guy fekk ñu sëgg ko guy guñ sëgg mooy niñ daan rawe buum euh, ne ko guy gële day nu mu mel mu ne ko dañ koo sëgg mu ne ko kan moo koy wodd mu ne ko yàlla mu ne ko ginnaaw yàlla moo mën a wodd guy gële négal ba yàlla wodd la ndax man su ma la ko su ma la fajalee rofle mën naa koo bëgg dootuma ko am wala nga geesu dootoo ma gis kon wékkal sa bopp ci kiy wodd guy gi mu wodd la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahiim. alhamdulilahi rabbil aalamiin. wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu eh, ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare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 di am mbégte bu baax ci jataay bi ci kàddu yi nga xam ne mbokk yi jiitu indi nañu ko di ko rafetlu bu baax di sant mbooloo mi nga xam ne ñoo nose lii te cant ga tàmbalee ci seen kilifa yi nga xam ne ñoo leen wommat teg leen ci aw yoon ba ñu mën a xalaat xalaat bu jube nii kon di nuyu sëriñ Cheikh ak njabootu sëriñ Mahmoudan gi ci jataay bi yépp ak ñi nekkul ci jataay bi sax bàyyiwuñ ci kenn kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la wàccee sa wàccukaay di jaajëfal bu baax a baax eh, daairatu seti sëriñ mahmoudan yi ci xalaat bu am solo bii defe naa ne sëñ xaadim dikk na ci bu baax ci xalaat bi ni mu amee solo waaye mel na ni li ñu sàkk woon ci tam bi defe naa ne sëriñ xaadim indi na ko waxtaane ak bokk solo si mu am fi ko suñu borom teg taxawaay biñ ci war a am ci dundal ko ak na ko mag ña doon defee te xam ne la mag ña doon def mooy yoon wa ba sax dugg ci yi nga xam ne tàmbali na ko ruur te man cee yàq tamit yu yaatu te daj jamono fi ñu toll nii loolu defe naa ne li mu ci indi jot na sëkk euh, sëriñ seexu naay jàngat na li sëñ xaadim wax tomb par tomb ba nga xam ne daanaka lu ci ëpp résumé muy tënkaat na ko bañ gën cee mën a jariñu maanaam nga xam ne bu yaatu woon tey tënkaat na ko bañ man koo def ay tomb loolu ko nekk lu am solo mu mel ne kon ñun fi ñu jàpp ne ci lañ war a mën a jaar gannaaw bu kàddu yu am solo yooyu jàllee waaye ginnaaw dañoo wax eh, taxawaayu sët yi ci ay sët ci dundal ndonol seen maam loolu taxawaay bu rëy bu yaatu la bu mat a xel xam naa li ma ci jiital mooy Euh, sët yooyu su ma leen doon damay jàpp ne am nañ àq ci ñu boole leen ca waxi sëriñ ba su ko defee loolu dafay tax ñu gën a bàyyi xel li ñu am lum doon sëriñ bi ca mbind ma mu te jëmale ko ca sëñ Maam Mor Soxna Jaara waxoon na ko ca ne jamaalukum ilmun wa sahyun wa adab laasimuha yunfa ankumul wadab jamaalukum ilmun wa sahyun wa adab loolu su ma ko indee dama bëgg a tegtale rek dama leen a bëgg a fàttali rek ne am ngeen doon lu rëy am ngeen doon lu rëy dëkk bii ku ñu ne sa maama ko sanc jóge Touba ba fii te boobaak léegi yàggut taxawal fi lim fi taxawal def fi lu toll nii te lii dong du ab liggéeyam benn la ci ay liggéeyam gaa ñi am ngeen maam ju baax de am ngeen sasu rëy de bu rëy rëy loolu sasu rëy la waaye falilaay alhamd e, suñu borom mi tànn nit boole ko ci maam jooju su góor góorlu dana ko dimbale ci barkeb maam jooju kon loolu it bu mu tax li sasuy rëy rëy bu mu teye ngeen am ci yaakaar bu baax a baax ci jàpp ne mën naa wéy waaye li ma bëgg ñu di ci gën a bàyyi xel mooy ku xam Sëriñ Tuubaa ci boppam radiyallahu anhu taxawaayam ak ñi mu àndaloon muy Sëriñ ma sàmba ak ñi mel ne moom euh, fa ñu yóbbu woon jamono ba tax ñu mel ne Cheikh Mahmoudan mën a génne ci ñoom diggante bi ni mu gàtte bi sëñ xaadim di jeexal yii mu fi junj te xam ne waxtu weexat waaye tuuti la ci laal mooy ruur mi ni mu toll tey ak defar bi démb ni mu baaxe woon ak yàqu gi tey ni mu réyee ñaar yooyu warees na ciy xalaat defaru démb bi ni mu baaxe woon ak yàqu tey gi ni mu réyee loolu laaj na xalaat loolu suñ ci xalaatee dafay tax ñu laxasaayuwaat ngir gën a mën a defar xam nga lu tax àddina yàqu la baaxoo àddina yàqula baaxoo ba baaxoo yàqu moo tax suñu boroom bi mu fi wàcce bi mu fi nammee wàcce doomu aadama suñu maam aadama mi ci jiitu mu def ko muy ab yonent di defar waaye gis ngeen ne bi mu ko defee muy ab yonent di defar it ca nekkuk aadama ca nekkuk suñu maam aadama alayhi salaam la doomam rey doomam ci kanamam ñaari doomi aadama kenn ka rey morom ja kon yàq ga tàmbali foofa jaamu sa war a tàmbali te aadama nekk ci kaw suuf te dib yonent di defam doom ju aadama jur rey jeneen moroomam ju aadama jur yàlla di yónni yonent yi ñuy toftaloo waaye ku mu yónni su ne jàng tuuti dem ak ñu doon jàmbaar yépp lañu tabaxoon lu mel ni lii xew moo cay xewaat day dellu yàquwaat su ko defee kon loolu li muy tegtale mooy Cheikh Mouhamadoul mustafaa dafa waxoon ne fu ngeen gis lu baax jàmbaar a fa jaar su fasaxee ay defarkat fa ne kon loolu daf ñuy tegtal ne ku bëgg lu baax doo noppalu bu fekkonte ne fu lu baax am manees naa tëdd noppalu kon ñun ñii ñëw gannaaw Sëñ Tuubaa dinañ mën a tëdd noppalu ndax baaxaloon na ba lépp baax waaye àddina moo baaxoowut a baax di wéy gis nga loolu Ibnu Duraydi di wax laa tahjaban min saalikin min haalikin kayfa hawa bal wahjaban min saalikin kayfa naja min saalimin kayfa naja ku gis ku yàqu jërut nga cay laaj naan lu ko yàq ndax yàqu moom dafa yomb te bari saharal fasaadu fil barri wal bahri maa kasabat aydi naas waaye fi ku baax lañ war a laaj fu mu jaar ba baax fu mu jaar ba baax kon su fekkente ne dañ fee fekk ndono lii muy ngën ji ndono loo xam ne gëm nañu ne nit mësta donn lu lu gën ñun li ñu donn ci kaw suuf ndax donn bi mooy liggéeyu Sëñ Tuubaa ñi ma àndaloon su diir bi gàttee nii ba noppi yàq bëgg a tàmbaliwaat kon day tegtale ne ñun kat war nañoo laxasaay yu war nañoo góorgóorlu laxasaay yu góorgóorlu te xam ni defe naa loolu Imam Malik doon wax ne xeet wi euh, du xeetu mujj wi du baax lu dul ñi fi nekk teg seen tànk fa ña ci jëkk tegoon seen tànk ba mu baaxoon rek kon loolu rek mooy wax ji ñi fi jiitu woon te defoon fi la fi nekkoon fa ñu jaaroon muy doon ay jaamukati yàlla yu sàmm jox cër seen borom jox cër seeni moroom bàyyi xel kilifteen bu baax ku nekk nangul ka nga war a nangul ba noppi discord di jullit laxasaayu fas jom kenn ku ne bëggoo des gannaaw ci làng gi jàpp naa ne loolee mooy sàmm ndono li te moo koy wéel loola nag sëñ Xaadim junj na ci taxawaat ci njàng mi ak yar bi taxawaat ci njàng mi ak yar bi léeg-léeg ci jataay yi su ñuy waxtaane yar ba ñëw ci gone yi di wax ne dañoo yarootut man su may nattale léeg damay wax ni ndax gone yi dañoo yarootut wala dañ leen a yaratul sax kay ba ñuy yaru dafa mel ne yar ci boppam moo fi bëgg a jóge ku ci bàyyi xel ki la doon yar li mu doon daj ci yow yow dana la wóor ne asaka ji dajoo ko ci ki ngay yar ki la doon yar lim dajoon ci yow yow mii di yar tey wóor na la ne genn walla ko dajoo ko ci ki ngay yar kon ki ngay yar boo ko gënee yaru laa xar wa parce que liñ dajoon ci yow ba nga yaru dajoo ko ci moom lu ko waral nag jamono tënk walla nangam loolu yëpp jamono moom mooy ñun ñi ñun ñi ko dëkkee rek jamono du lu beru naan nekk ne naan jamono waykat ba daf ne woon naxiibu samaanu naa wal xaybu fii naa wamaa li samaani naa aybun siwaa naa jamono ji ñun ñoo fi nekk lu ci baax ñu ne waaye lu ci sikk ñu ne kon bu sikk amee du lu ñuy ber naan jamono jamono moom yàlla li mu ci defoon ba tey ma ngi koy defe noona jant bi di fenke ca sowwu ca penk di soo ca sowwu bu génnee tàng ak yemel noonu kon yeneen yi fi soppiku ci nit ñi la dama jàpp ne nag dafa jot ñu xoolaat suñu bopp bu baax a baax kenn ku nekk ci ñun jéem a laxasaayuwaat li ko yàlla booleel ci njaboot mu jéem a wéetaat ak ñoom ci jàng ci yar ñu xam fexe ba ñu xam seen bopp xam liñ am lu doon te doyloo ko kilifa gu taxawaat fees dell place gis nga li sëñ xaadim doon jàmbat léegi mat na jàmbat lool mooy léegi liñ miinutoon te di ko gis muy ndaw yuy génn di waxal seen bopp loolu wax dëgg yàlla yoon wi am na ci problème mbir mu xew mbooloo génn di wax loolu képp ku yoon wi ñor doo ko encouragé mukk wër te am jugut waaye nag na am lu mag ñi dimbalee ndaw ñi mooy bu ñu waree wax bu lu jar waxat jotee nit na mag ñi di wax waaye ne ndaw ñi bu leen wax ba noppi te ne jël yow it nag ah, dimbalee wut nag te lu jar wax xew kat mag ñi dimbalee ndaw ñi buñ nee ndaw ñi bu leen wax ba ndaw ñi ne cel lu ñu war a tee wax ñoom it ñu wax ko ba seen xol sedd guy waaye suñ ko defut nag duma ko wax te doo ko wax moom du wéy loolu ci toll ci problème yi la bokk boobu nag daa metti moom wax ci ndaw ñee gën a yomb wax ci mag ñi nañ ma ko jéggal nag waaye ci sikki yi la e, lii nii lu mat di def la jamono ñi ku koy xalaat faw nga tiit ndax nii muy doxe fii ñu toll nii ak ni mu doon doxe bu yàggul dara wuute na lool wuute na lool te kenn nag tëblewut ne nam doon doxee gën teyit li xaw a mooy ndax tegaatagul nañ ay yoon ngir dellu ca doxin woowa ngir dellu ca doxin woowa ñemee def ni sëñ Mahmoudan defoon ñëw ci àll bii wéet feek ay nit ànd ak ñoom di liggéeyal yàlla ba taxawal fi lii mu fi taxawal eh, seede su nga def léegi te man ma baaxoo woon di ko seede lool dama doon wax ne sëriñ Mahmoudan ak sëriñ Abibu li ma seetloogoon ci ñoom barab buñ ne seen barab la boo ko jubee jumaa ngay jëkk seen ak daara loolu màndarga mënu koo gën a rafet ci nituk yàlla itteem ju joo xam ne mbir xew mu àddu ca kenn amati loo cay teg mus sa am loolu laaj na bu baax ñi ci bokk tey ay ndaw ñu di leen ko fàttali tey ànd ak ñoom sax di ko doxe ak di ko waxe ba ñu xam ne li ñu am loolu moo leen ko may léeg-léeg am na loo xam ne bu ko nit waxee ñu defe ne dafa am sikki ci sëriñ bi déedéet sëriñ Tuubaa bis bu nekk dañ koy gën a gëm di ko gën a wóolu waaye damaa gis xeetu yombal goo xam ne man dafa may tiital mooy dafa mel ne daal léegi jaaxaan rekk ne sëriñ bi defar na lépp sëriñ bi defar na lépp ba daanaka kenn dootu góorgóorlu loolu it gis naa ne safaanoona ak man li ma xamoon ci moom rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi xururul yaati la wax tamit bu fekkente ne ñun ñoo koy waxit lekk léeg ci yenn wet lañ koy wax waaye ak di ci jëfe waaye duñ ko jëfe ci ci des gis nga suñ soxlay bopp yii muy kër yi ak oto yi tooguñu xaar naan sëriñ bi dina tabax kër yi de tooguñu it xaar naan sëriñ bi dina wàccee oto yi kon li aju ci suñ mbiri bopp yi nga xam ne moo koy jagal moom ku ci ne dangay xëy di ci kër kër yi su fekkee dëkk bi wala yoon yi moo am problème nag ñu ne sëñ bi dana ko régleel boppam sëñ bi defal na boroomam li mu ko war a defal ba boroomam fay ko daraam dootu yàqu li ci des ñu ñii fi yàlla bàyyi nañ ci góor góorgóorlu te sàmm ko ba ñii ñëw fekk fi luñ mën a jàpp yàlla nañu yàlla def dëgg dëgg ay murit ñu dindi ci dee ci dekk ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaye maa ngi ko mën a waxal ma njëkk dañ daa taxawul gone ci ko kër takkal ko ay bokkam te loolu wax ne nit ki ñeent ñi ko yàlla may ci ci lislaam kenn araama ko ci te ñeent ñooñu ñoo di ay mbokkam mooy xale daana toog ba war a denc soxna ñu ne ko demal sa kër nijaay wa mu mat denc soxna ñu ne ko demal sa kër bàjjan wa ilaa mu mat a denc soxna ñu ne ko demal sa kër baay diw wala mu mat a denc soxna ñu ne ko demal sa kër yaay diw su demee kër do nijaayam doomi nijaay la fay fekk su wëlbatikoo doom dem kër ndeyam doomi ndeyam la fay fekk mu bokk ak nijaayam su demee kër bàjjanam ku bokk ak baayam la fekk su demee kër baayam fekk fa ku bokk bàjjanam nit nag ñeenti doom rek la am yu ko araamut muy doomi ndey baa doomi baay baa doomi bàjjan baa doomi nijaay jeneen doom amut kon saa yoo takkee koo xam ne te baat boo xam ne ñu ngi koy utiliser bu baree bari sëñ xaadim mooy ñu bari ñu mel na man dañ naan daal boo may wutal soxna wutal ma ko ma mat sayta saytaane ndax nit nag bu ñu ko takkalee ku ko mat seytaane bu juree doom du doon saytaane ndax ginnaaw yow ku la mat seytaane ngay wër te bu di it melokaanu seytaane lay nekk ak yow ndax fi ne bari na jigéen ñoo xam ne ci paget bii lañ leen def di leen jaay ci paget bii mooy paquet bi ci la li muy def ci bopp bi ne li muy mont ci bët yi ci lay ne li muy monte ci ween yi ci lay ne li muy monte ci we yi ci lay ne boo boolee lépp muy jigéen boo ko démontee doo fa fekkaat la neen kon jigéen ñi ci paquet lañ leen def di leen jaay saa yoo jëndee ci ñooñu nag jënd nga seytaane saa yoo juree doomu doon saytaane kon loolu yaakaar naa ne bokk na ci li nga xam ne dara gënu ko yàq ci jamono bi ko bi ko jeexal mu mel ne sëriñ Basiru dafa am liggéey bu mu liggéey ci sëñ Mahmoudan maamam muy da cee def taalif bu am solo boo xam ne sëriñ Abdou Lahad Touré moo ko jàng sonn na ci lool nag jëlale naa li muy woy rek ak ni woy jafe waaye defar gi mu ko defar ba mu di seedee mu bëgg koo laabire taalibe yi tax mu ne dañ koy wecciku la ko ci keesu daayira bi seedee bu ne téeméer nga xam ne day delluwaat ci keesu daayira bi loolu lañ wax ne dongo yi dañoo bëgg ñu jënd ko mu jeex ñu def ko ci keesu daayira bi su ko defee fab kàddu gi nag su ko jox sëñ Basiru su ko defee na ci ñëpp wecceeku kenn ku ci nekk koo xam ne daal maanaam bëgg ngaa dégg ci sëñ Mahmoudane lu lay lu lay bégal na nga wecceeku ci CD yii CD téeméer lay doon